sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu aq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jàmm yàlla yépp nangul ñu suñuy ñaan yépp jéggal ñu suñuy bàkkaar yépp defal ñu jàmm ak mucc ak xéewal musal ñu ci jàngoro yépp jàngoroy yaram yi ak jàngoroy xol yi di ñaanal kilifa gi cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla yàggal ko fi lool te yokk ak wéram àggale ay yéeneem yépp di ñaanal suñu kilifa yépp di ñaanal jullit yépp di dellu siwaat rek ci waxtaan woo xam ne tàmbali woon nañ ko jëmale ko ci amradul qulub muy jàngoroy xol yi waxtaane woon nañ ay jotaay yoo xam ne yépp dañ koo jëmale woon ci amalul qulub mooy xol yi nga xam ne moom la xol di jëf jàngoroy xol yi nag dafa mat di waxtaane ndax jullit bu nekk di ko bàyyi xel di ko moytu lu mu yëg ci boppam it <coughs> mu jéem koo saafara ndax jàngoroy xol ay loram dafa bari ni ñuy yittewoo suñ jàngoroy yaram yi di ko seet lu ca mat a faj ñu taxaw ci di ko faj noonu lañu war a bàyyee xel xol ci jàngoro yi ciy nekk moom it di ko jéem a xam lu ci mat a saafara ñu jéem koo saafara ndax kat xol bu mucc ci jàngoro yooyu mooy musal ëllëg jaam bi bu taxawee ci kanam boroomam ndax suñu borom subhaanahu wa taala moo ñu wax ne yowma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim kon xol bu mucc ci jàngoroy yi nga xam ne mooy jàngoroy xol loola rek mooy musal doomu aadama yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne it xol bu yéwénee ci nit ki léppam yéwén waaye bu yàqoo léppam yàqu moo tax nag sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu daana dénkaane bu baax ñuy sàmm suñuy cër waaye daana feddali sàmm ak yéwénal gi ñu war a yéwénal suñuy xol mu ngi koy wax ci dénkaaneem ba ama alqalbu fa alaykum aydan bi xifdihi wa islaaxihi fa innahu azamu haadihi al aadaai xataran wa aktharuha asara sëriñ bi ne na ngeen bàyyi xel bu baax a baax xol sàmm ko yéwénal ko ndax cër yépp moo ci ëpp solo cër yépp moo ci ëpp jeexit wax na mu waxoon ne kalmalik fil aadaay dafa mel ne rekk buur ci cër yi fu mu jëm cër yëpp jëm foofa ñu bëgg a waxtaane tey nag benn ci jàngoro yooyu te mooy alkibru walla yaasu billah muy jàngoro yi rëy rëy dafa doon loo xam ne jàngoroy xol la rëy du doonut loo xam ne ci ay cër lay nekk waaye ci xol lay nekk léeg-léeg nag doxaliin ak jëflente dana ko fësal màndargaal ko waaye jëfi xol la jàngoro la juy nekk ci xol yaan ci yàlla musal rëy nekkul rekk ci sol yére yu yiw walla sol yére yu baax sol dàll yu baax yiw loola taxul nit a rëy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu waxee ne koo xam ne aw fepp tol ne zarra muy atum lu toll noonu mi ngi ci sa xol cig rëy du dugg àjjana ba mu ko waxee dafa am ku ne ko waaw léeg-léeg nit day dana sol yére yu rafet sol dàll yu rafet yonent bi dane ko yàlla de dafa taaru te bëgg ab taar inna allaha jamilun yuhibbul jamaala waaye rëy nag mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi mu ne ko alkibru batrul xaqi wa xamtu nnaas kon rëy dana tax nit ki du nangu dëgg gu jóge ci keneen ku dul moom rëy dana tax nit ki di xool boppam jàpp ne moo ëpp xiima moo ëpp valeur moo gën a màgg keneen ku dul moom loolu ci xol lay nekk ndax ki rëy mooy kii xeeb doomu aadama yi bëgg a jël boppam teg ko ci seen kaw moo taxoon Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bam ñuy wax dëgg-dëgg rëy noonu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee noonu la ko leerale ne xaqiqatul kibri bi kasril kaafi wa bi sukunil baabi la xilaafi qul rafu nafsin maa katmil xaqi maa taazumin wa xamtil xalqi nee na mooy yëkkati sa bopp ba noppi di nëbb dëgg doo ko nangu waye di màgg màgg du wane sak màgg di wane sa gën a yëkkatiku boole ci xeeb nit ñi loolu kon mooy rëy di jàngoro joo xam ne nag jàngoro ju yées la ci ab xol di wowal xol di soril nit ki ngir mën mënde yàlla di waral mbugal rëy googu nag di ay xeet am na ci rëy goo xam ne mooy rëy ba àgg ci rëy ci jaamu yàlla rëya jaamu yàlla rëya nangu ne yàlla mooy sa buur rëy googu nga xam ne moo nekkoon ca firawna wala yaasu billaah yaan ci yàlla musal rëy googu nga xam ne moo tax suñ borom di wax ne inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin ñi rë ñi ma rëye jaamu day ëllëg sawar lañ jëm dëkke faak toroxtaane waaye bokk na ci rëyit rëy am kilifa rëy ba na doo nangoo topp kenn ni nga xam ne ni la yéefari màkka ya doxaleente woon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam seeni gu rëy tax nanguwuñoo topp yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye bokk na ci anami rëy yi mooy rëy gi nga xam ne nag moo tasaaroo ci ku ci yàlla musalut te mooy yëkkati sa bopp di puukarewuti ci nit ñi xeeb ñi ci des doo nangoo am kilifa doo nangoo nangu dëgg bu jógewul ci yow loolu mooy rëy gi nga xam ne euh, yépp baaxunu waaye bii rëy nag gàllankoor gi muy def ci diggante doomu aadama yi dafa doon gàllankoor gu rëy rëy rëy rëy googu nag doon jàngoroy xol lii wane ak nim bone mooy sëriñ bi am na leeral na ko nee na bokk na ci liy taxa mooy yàlla maanaam liy jur lii jural nit ki muy mooy yàlla rëy googu bokk na ci ndax dafa am yu sëñ bi wax ni mooy usul mooy usulul isyaan mooy cosaani mooy jur mooy mooy cëslaayu mooy yàlla yi nit ki mooy yàlla te mooy rëy ak xër ak kiñaan mu ne wa jaa anhum ann isyaan aljalil aydan lahu thalaathatun min al usul alkibru walxirsu maan walxasadu fa man xala minha ataahu rachadu أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

أكبر الله أكبر jàngoroy xol jooju di di rëy yi yées ci jàngoro yi la ni ma ko waxee day taxam mooy yàlla waaye li muy indil ki mu nekk ci moom it mooy ak suufe rek mooy ay lor rek mooy ay la koy indil ni nga xamee ne safaadub mooy torox lu wàcce sa bopp te yàlla tax ni muy juralee ki mu nekk ci moom yàlla nañ ko yàlla defal muy wàcce sa bopp ak toroxlu ku mu nekk ci moom lim lay jural moo di yëkkatiku sëriñ tuuba radiallahu anhu nee na wajtanibul kibra fa innal kibra yajurru xafdan wa adan wa sharra nee na ngeen moytadiku rëy ndax rëy day bijjil nit ki da koy indil ak suufe indil ko lor indil ko aw ay ni nga xamee ne ku lu te yàlla tax yàlla def lay yëkkati te torox toroxlu xam nañ ne mooy safaanuk rëy alayhi salaatu wassalaam moo waxoon ne ma tawaadaa bokk na ci lim nga xam ne dana ko waral mooy mbugalum yowmal qiyaam ëllëg yan ci wa man laqiya al bi kibrin maa riya yuazab bi adlillahi fastabidul kibra nee na képp koo xam ne daje naag suñu boroom subhanahu wa ba muy dajeeg moom ak rëy nekk ci moom ak ngistal nee na kooku ëllëg ci maanduk suñu boroom dinañ ko mbugal kon nag na ngeen sori lii di ak rëy te alquran wax na ci barab yu baree baree bari ne ëllëg sawara mooy këru ñi nga xam ne dañ doon rëy rëylu biñ nekkee ci àdduna fadxulu abwaaba jahannama xaalidina fiha fala bisa mas fala bisa mas wal mutakabirin kon loolu war naa tax kenn ku nekk moytu moytu rëy jéem koo saafara bokk na ci li tax rëy baaxut mooy day yàq diine yàq pas-pas sëriñ bi mi ngi wax ne rëy li tax mu gën a euh, bon ci mbooleem xeeti jàngoroy xol yi mooy yi ci des xëy na ci ay jëf dañuy yàq jëf waaye moom day yàq diine ci boppam day jam diine fal kibru azamu razaili jamii li annahu yaqdaxu fi diini l muti yonent bi wassalaam ŋàññi na fu baree bare bari lii di rëy wax na ne ki rëy ëllëg suñu boroom subhaanahu wa taala du ko xool wax ne laa yanzuru llahu yowma alqiyaamati ila man jarra izaarahu batara ki nga xam ne day dox di puukarewu di diri ay yéreem ngir rëy rëylu ngir wane ak ne moom moo ëpp qiima ñi ci des kooka yowmal xiyaam suñu borom du ko xool ñi nga xam ne ëllëg yowmal xiyaam suñu borom subhanahu wa du wax ak ñoom du leen xool du leen sellal ñett yonent bi alayhi salaatu tudd na leen ci muy mag muy njaaloo wala iyaazu billah waaye buur boo xam ne day wax lu dul dëgg waaye koo xam ne barilewul wala mu yor njaboot ba noppi rëy di rëy rëylu loolu nag moo tax sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nga xam ne da doon defare di defar xol képp koo xam ne ànd nga ak moom lam doon jiital mooy at taxliya qabla taxliya taxliya nag mooy setal la ci mbooleem jàngoroy xol yi nga xam ne mooy gàllankoor nit ki di tax muy mooy yàlla waaye di ko soril yërmande yàlla di ko soril péyub sunu boroom di ko gàllankoor ci ab doxam jàngoro yooyu sëriñ bi la lam daan jiital ci jëflanteem ak taalibe bi mooy dindi ko ci moom loole nag bokk na ci rëy rëy moom nit ku mosaa ñëw ci moom jëblu ci moom dina la jaarale yoon woo xam ne da ngay tàqali kook ak rëy ànd ak toroxlu ak wàcce sa bopp loolu tax na sax mu bokk ci màndarga yi ab taalibe màndargay bay murit dëgg mooy day toroxlu day wàcce boppam du amu gu rëy wàcce sa bopp te yàlla tax toroxlu te yàlla tax loole màndarga la ci màndarga yi ab murit kibru nag bu ko izza nga xam ne yàlla nee na suñ boroom moo ko moom ak yonent bi ak jullit yi ndax izza moom xeeb nit ñi du ci nekk yëkkati sa bopp ci loo nekkul ci yow du ca bokk waaye kibru moom dangay xeeb doomu aadama yi doo nangoo am kilifa moo tax sëriñ bi daan moytuloo baax a baax a baax euh, kibru wax nañ ko moytu nañ ko sori war a yar taalibe yi ci tawaadu ni ma ko waxee léegi ak wàccee seen bopp moo tax koo ci xool rek ci ñi àndoon ak sëriñ bi kum gis rek day defe ne yaa ko gën kum gis rekk lay jox def kilifa féetale la kaw képp kuy kilifaam mu nangu laa topp nangu laa déggal loola yaakaar naa ne melokaanu murit dëgg mooy melokaan woowu ca loolu ku ciy wut ay misaal doo sori am nañ misaal masal xay ci suñ kilifa gi nga xam ne ku fi mu mas a nekkal rek topp na la déggal la jox la bopp bàyyee la ak boppam ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko loolu mendarga la loolu misaal la moo xam ne dañ koo war a roy xam ne loolu moo di taalibe dëgg dëgg dëgg moo di njulit ndax taalibe dëgg mooy julit dëgg kon nag xam lii rëy jéem koo saafara lu am solo la moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu jàngale na lan mooy saafara ak rëy bokk na ci boo demee ci Masaalikul naan mi ngi wax ne bokk na ci liy taxa nit ki tàggalikoo ak rëy mooy mu xam ne li yàlla bind ñooyam li ñuy gënante rek mooy ragal yàlla li ñuy gën a tedde mooy ragal yàlla waaye ñépp a ca ki ragal yàlla nag du gis kenn ba jàpp ne moo ko gën gis nañ suñu mag ñi am na ci ñoo xam ne nañ daan signé buñ bindee dara afqarul fuqara wa ahqaru kulli ma yura am na ñoo xam ne noonu lañu daan euh, binde daan ko def ci seen adresse nga xam ne wane ne ñoo gën a aajewoo ci mbindeef yi jëm ci seen borom waaye ñoo gën a xeebu ci mbindeef yàlla yi loolu sëñ Mbàkke Busso daan nañ ko gis ci ay mbindam sëñ Shuaybu radiyallahu anhuma ak ñeneen loolu lépp wane rek seen wàccee seen bopp te yàlla tax waaye nag moo tax suñu borom subhanahu wa taala li yónnent bi wax day dëggu ku wàccee sa bopp suñu borom yëkkati la kon moo tax ñoom ñiy wàcce seen bopp suñu borom subhanahu wa taala waxtu wu nekk da leen di yëkkati jox leen ak cër kon sëriñ bi dafa wax ne eh, nit ki li tax doo rëy mooy nga nangu nga xam ne yàlla lim bind ñooyam nga xam ne yow feek xamagoo fooy mujj xamagoo ba xam gën nga kennam déet dawaauhu ilmun bi anna ma xawaa takwiinuhu min albaraaya fi istiwa falasta yaa axi tafuuqu ahada li jahli xaatimati amrika gada waaw nee na kaweegoo kenn ndax xamagoo ëllëg fooy mujj te jullit dafa war boole xawf war rajaa yaakaar suñu boroom yaakaar yërmandeem waaye ragal mbugalam loolu nag ku nekk ci yow doo rëy moo tax sëñ beneen dénkaan mi ngi wax ne boo jàppee ne yow dangaa féete kaw te xamagoo ëllëg fooy mujj loola màndargam safax la màndargam ku ku dese la kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu sàmmal ñu suñuy xol génn ci yépp jàngoro rawatina jàngoro jii di rëy nga xam ne day yàq diine waaye day yàqub jëflente ndax kum nekk ci ci yow kenn du mën a jëflenteeg yow doo mën a jëflenteeg kenn yàlla na ci yàlla musal def ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy tawaadu lillahi subhanahu wa taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah وبرؤية قصه وبالشفاءة أرضى وللمقام المحمود ارتضى صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحاب الأعلام أما بعد فيا أيها الناس استعدوا وما مثل العمل الصالح من استعداد وتزودوا وما مثل التقوى وطاعة الله الزاد wa xaasibu anfusan la shakka fi kawniha muxaasaba wa raaqibu acmaalan hiya bi laxdi lajfaani muraaqaba wa tuubu ila rabbikum warjicu wattaqu llaha mastatactum wasmacuu wa atiicuu wa tahabu fala budda min naqlati lmamaat walwuquufi min alqiyaamati fi xarasaat واعلموا أن الصلاة على نبينا المصطفى الكريم من مفتاح أبواب الرحمات وأن الاعتصام بجنابه العظيم هو الموصل إلى أعلى المراتب وأشرف الدرجات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد يخشى عقوبة مولاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا wal amru yawma idin lillah alhamdulillahi lazi asraqa fi qulubi man shaa min ibadihi anwaar alyaqin fa nashitat jawarihum li taati rabbil alamin nahmaduhu taala wa nashkuruhu ala in'amihi almutawali kulla hiin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min dhunubina allati kullun minna biha rahin ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول اصطفى أجل شفيع في المذنبين أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال wa taqu yawman turjacuuna fihi ila allah suma tuwaffee kullu nafsin maa kasabahum laa yuslamuun wala yushkilannakum attakaasuru fi lamwaali wal awlaad fa inna yawma alqiyaamati yawman laa yanfau fiihi maalun wala banuun wastaxyuu min allahi an an yuxallibakum fi nicamihi bukratan wa asiila wa antum alaa maxsiyatihi wa muxaalafatihi muctakifuun wa maa kawnihi laa yaasubu anhu mithqaalu darra faqad xadda lanaa xuduuda wa jacala alaynaa xafasatan wa shuhuuda wa qaal wa inna alaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun cibaad allah tafakkaruu yowman yuxaasabu fiihi al cibaadu ala annaqiri wal qitmiir min kulli danbin saxiirin aw kabiir allahuma arsuqna tawbatan nasuuxa wa aamilna birtika alxafi ma anta aalu ya arxama arrahimin allahuma salli ala sayidina muhammadin salaatan tadfahu biha ana kulla wayl wa tajlibu biha ilayna kulla nayl wa taxjubuna biha an alqawmi almufsidin wa tuwajjihu biha ilayna nasal qawmi alsalihin amiin yaxfirullahu lana wa lakum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 maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa la ad-dallin yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa fil ardi al-quddus al-'aziz al-hakim والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين wa axarin minhum lamma yalxaqu bihi wal azizul hakim zalika fadlullah yuti man yasha wallahu dul fadlil azim masalu allazina umilu tawrata summa lam yaxmiluha kamasali ximari yaxmilu asfara biisa masalul xawmi allazina kadabu bi ayati llahi wallahu la yahdi alqawma zalimin qul ya ayuha allazina haadu in zaamtum annakum awliyaa lillahi min duni nnas fatamannaw al mawta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bizalimin qul inna al-mathalu allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduuna ila alimi al-ghaybi wash-shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ayyuha alladina amanu isalu lissalati min yawmi al-jumuati fasaw ila dhikrillahi wasru al-bay' dalikum khayrun lakum wa in kuntum ta'lamun فإذا أخذ الإسرار فانصرف إلى وقت خير من فضل الله اذكروا الله لعلكم تطلعون yaa ayyuhal lazina aamanu tuubu yaa ayyuhal lazina siraati min yawmil jumu'ati fadhkuru Allaha wazkurul bay'a zalikum la'allakum ta'lamuun izaa qudiya salaatu fantashiru wabtaghuu min fadlillahi wazkuru Allaha kathiiran la'allakum tuflihuun wa izaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infadduu ilayhaa wa tarakuuka qaa'iman qul maa inda Allahi khayrun mina al-lahwi wa mina at-tijaara wallaahu khayru r-raasiqiin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 qawlaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha kadabat samuudu bi taxawaaha idh ba'atha ashqaaha fa qaala lahum rasuulullaahi naaqata llaahi wa suqyaahaa fakadabuuhu fa aqaruuhaa fa damdama alayhim rabbuhum bi danbihim fa sawwaahaa falaa yaxaafu uqbaahaa allahu akbar allahu akbar sami allahu liman rabbana wa lakal hamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum. financier demain. <laughs>